bisimilah nu dellusiwaat sunu bindu xam sa diine ci saw làkk tey moo nekk sunu jotaayu fukk ak juróom ñaareel mooy numéro 17 ci tubaab kon noo ngi nekkoon ci fay euh, fay li la imaam rawe bu imaam sëlmalee fekk daf laa rawoon ci julli gi nees koy faye loolu lañ doon jàngale. jàngale woon nanu jullik suba kon tey dañuy jàll ci yi ci tege su ko defee kon dañuy jël julli yi nga xam ne moom yeenti ràkk la te kon mooy lu mel ne tisbaar ak takkusaan ak gee xamal ne ñoom ñett ñii ñépp ñoo bokk nuñ leen di faye tisbaar takkusaan ak gee ñoo bokk luñ leen di faye li ci am ak wuute rek mooy bu dee da ngaa war a wax ci kaw nga wax ci kaw bu dee da war a wax ndànk nga wax ndànk lu mel ne bu fekkee imaam dalaa raw ci tisbaar ku nekk xam na ne kon booy fay ndànk ngay wax ndax tisbaar ndànk lees koy wax bu dee imaam dala doon jiite jullit gee kon booy fay ku ne xam ne da ngay wax ci kaw ndax ñaar yaari rakk yi njëkk ci gee des koy des koy béral des koy wax ci kaw kon loolu rek la waaye li des nag amul ak wuute buñ la rawee eh, ni ngay fayee ni ngay fay amul ak wuute kon su ma jàngalee benn bi rek xamal ne ko li ci des yëpp noonu lay mel kon nanu jël jullig tisbaar jullig tisbaar léegi daal jàppal ne yow yaa ngi nii bokk nga ci jullig mbooloo gi imaam rawe na la benn ràkka mooy am na benn ràkka boo fekkewut jullig tisbaar nag yeenti ràkka la yoo xam ne yaari ràkk yu njëkk ya day am faatiha ak saar yaari rakk yu mujj yi moom faatiha dong lay am bu dee julli takkusaan moom it même chose ñoo bokk lépp bu dee julli gee nag moom it ñaari rakk yu jëkkee day am faatiha ak saar te dañ koy jàng ca kaw yaari rakk yu mujjee faatiha rek kon gis nga ñoo nuroo lekkoon jullit tisbaar la te wax naa la su ma la jàngalee tisbaar rek jàppal ne takkusaan noonu ko koy faye gee tamit noonu nga koy fayee kon ñëw nga ci julli gi fekkewoo ràkk bu njëkk ba te waxoon naa la bépp ràkk boo fekkewul rukkoo ba rek jàpp ne fekkewoo ko amoo ko da nga koy fay ñëw nga ci jàkka ji wala ñëw nga ci mbooloo mi fekk nga ne imaam julli na ràkk bu ràkk bu njëkk ba ba noppi walla boog fekkewoo daal rukkoo ba ci ràkk bu njëkk ba waaye ànd nga ak imaam ñaareelu ràkka ànd nga ak moom ñetteelu ràkka ànd nga ak moom ñeenteelu ràkka imaam bi nee na asalaamualeykum nooy def subaa nga daa tont daan ne dama naan ñokket jóg taxaw te duma wax allahu akbar su ma jógee taxaw ba taxaw jonn daal di jàng faatiha jàng aw saar su ko def bu dee tisbaar ak takkusaan kon tànk laa koy jàng bu dee gee ca kaw laa koy jàng daldi di rukkoo siggi rukkoo dem sujjóot toog sujjóotaat toog daal di taaya ba mu jeex nga def allahumma salli ba mu jeex nga sëlmal jeex na jeex na nii ngay fay muy tisbaar muy tëkkusaan muy muy génn nii lañ koy fay kon jàngal naa li ñuy fayee benn ràkk julli gi benn ràkk rek nga ci fekkee wut kon fekk nga ñett ya kon su boobaa nag benn ràkk bi nii nii lañ koy fayee. Raaxib TV Raaxib TV. war naa leen buñ la buñ la laajee nii ko koy tontoo. nga daan ne waaw léegi bu nu euh, rawee bu ñu rawee yaari ràkk nag kon tey moom bi ma ñëwee ci jàkka ji wala bi ma ñëwee ci mbooloo mi wala boog maa ngi julli ci kër gi imaam ji jiite fekkewuma ràkk bu njëkk ba fekkewuma ràkkam ñaareel bi waaw léegi imaam moom ñaari ràkk yu mujj yi rek la ma jiite waaye yaari ràkk yi njëkk yëpp fekkuma ci benn mu benn rukkoo moo ca fekkee ci ñoom ñaar ràkk yooyu kon su boobaa bu imaam ne asalaamualeykum nooy faye yaa ngi ci tisbaar wala takkusaan wala gee nga daal di tontu lii may waaj wax danga naan bu imaam ne asalaamualeykum man damay naan ñokket jug taxaw daal di wax allahu akbar waaye du ma yëkkati samay loxo nag damay ñokket jug taxaw rek su ma taxawee daal wax allahu akbar daal di jàng faatiha jàng aw saar rukon sikki rukon sujjóot toog sujjóotaat toog daal di jug taxaw bul toogaat foofu de da ngay daal jug taxaw boo jógee taxaw daal di jàngaat faatiha jàngaat aw saar bu dee tisbaar takkusaan ndànk bu dee gee ca kaw rukkoowaat sikki rukkoo dem sujjóot toog sujjóotaat daal di toog jàng attahiyaat jàng allahumma salli jeex na fay na ñaari rakk yëpp kon daal ci gàttal bu imaam sëlmalee da ngay jug taxaw daal di wax allahu akbar daal di andi ñaari ràkk yoo xam ne faatiha ak saar lay doon faatiha ak saar te doo toog seen diggante nag boo indee benn bi doo toog da ngay indi benn bi jugaat taxaw indi ba ca des daal di taay sëlmal mu jeex nii boo ko defee rek danga nga fay tisbaar takkusaan bu dee gee da ko mën a fay nga bàyyi xel bu dee gee kon da ngay jàng ca kaw bu dee tisbaar takkusaan nga jàng ndànk kon jàngal naa la bu la imaam rawee ñaari ràkka noo koy faye noo koy faye ma ko bala imaam rawee ñaari ràkka kon jiite na la ñaar rakk yu mujj yi doo nga fekkee fekkoo yu njëkk ya bu imaam sëlmalee dangay ngay taxaw indi faatiha ak saar rukkoo sigiru ko di sujooti jugaat taxaw andi faatiha ak saar daal di taaye sëlmal mu jeex kon leer nu jàll ci bu mujj mooy bu la imaam rawee yetti rakka saa yoo xam imaam dafa laa rawee ñetti rakka su boobaa nooy faye bu la imaam ñett rawee ñetti rakka li muy teg kon mooy imaam benn rakk dong la la jiite kon yow julli gi benn rakk rek ci am tisbaar tëkku saan wala muy gee yow benn rakk nga fekk muy rakk bu mujj bi rakk bu mujj ba daal ànd nga ak imaam rukkoo ba moom kon bu imaam sëlmalee nooy faye nga déglu bu baax bu imaam sëlmalee danga naan ñokket jug taxaw te bul wax allahu akbar danga naan ñokket jug taxaw boo taxawee ba taxaw jonn nooy def jàngal faatiha ak saar rukon sigi rukon sujjóot sigi sujjóot daal di toog taaya foofu mën na ngay toog taaya fii nag ñu bare bare bare dañuy jóg taxaw ñoom ñu bare bare dañuy jóg taxaw rawatina bu dee jullit timis ñu bare dañuy jóg taxaw jàppal ne saa yoo amee benn rakka benn rakka ci jullit imam benn rek nga ci am boo jógee fay beneen rek danga koy boole muy ñaar nga toog taaya kon yaa ngi ci gee wala yaa ngi ci tisbaar wala yaa ngi ci takkusaan imam benn ràkka dong nga fekke ci julli gi imam sëlmal la boo jógee taxaw da nga indi ràkka boo xam ne faatiha ak saar lay doon nga rukkoo si giru ko sujjóot toog sujjóotaat daal di toog jàng attaxiyaatu ba mu bu attaxiyaatu jeexee da di jug taxaw daal di jàngaat faatiha ak saar faatiha ak ngay jàngaat daal di rukkoo si giru ko dem sujjóot toog sujjóotaat jug bul toog de jug taxaw boo jógee taxaw nag daal di indi benn ràkka boo xam ne faatiha dong lay doon bu benn ràkk ba jeex nga tari ay tahiyaatu nga toog taaya julli ci yonante bi daal di sëlmal mu jeex kon nu baam ko julli gi bu fekkee benn ràkka rek nga ca am imaam jiite la ñett eh, eh, ñett faat la laa la bëgg wax benn ràkk rek la la imaam jiite ñett yoo xam ne fekki ko boo jógee taxaw da indi faatiha ak saar te boo noppee nga toog taaya foofa nga jugaat taxaw indi faatiha ak saar doo fa toog nga jugaat taxaw indi faatiha dong nii lañ koy fayee kon nii la ñuy fayee julli boo xam ne ñeenti ràkk la bu ñu la ci rawee benn wax naa ko bu ñu la ci rawee yaar wax naa ko bu ñu la rawee ñett xam naa nag lépp loo xam ne mënoo ko jóg comprendre ba léegi maanaam mënta dugg sa bopp kon da ngay dem ci borom xam mu delloo ko leeral bam bam leer la mën naa am yàlla def ci ak leer ñeenti rakk moom mënuñu la ko rawee ndax bu fekkee ne bi nga ñëwee da ngaa fekkewul dara julli bi bu mujj ba sax fekkewoo rukoo ba kon su boobaa dëgg la mën ngaa yéene rek kàbbar ànd ak imam noonu waaye bu taayee ba sëlmal da ngay da ngay kàbbat da ngay da nga naan allahu akbar jug taxaw doo yëkkati say loxo nag daal di julli ni nga war a jullee rek bu dee tisbaar nga julli ñeenti rakk na waaye foofu rek amul sëlmal di liqaamaat nag déedéet amul liqaam da ngay taxaw rek kàbbar ne allahu akbar bu dee julli suba la woon nga julli ni ñu war a jullee suba kon fekkiwul dara ci julli gi kon yow amul duñu naan da ngay fay de da ngaa fekkiwul dara kon da ngay julli yow ci gàttal kon ñu ñëw julli timis daanaka julli daanaka bi ma jàngalee gee rek daanaka jàngale naa julli ndax julli timis ñaata ràkka la ñun la ñett kon ñaar dong lañ la mën a rawee ñu laa rawee ñett ndax buñ la rawee ñett mooy amoo ci julli gi dara gis nga buñ la rawee ñaar mook ni ma la jàngaloon noonu ngay gee buñ la rawee ñaar benn rek la waaye teewul ma jaar ci ba léegi. Ah, julli timis bu fekkee ne benn ràkka lañ la rawee benn ràkka daal bi nga ñëw fekk nga imaam julli ràkk bu njëkk ba ba noppi kon yow fekkee nga ñaareel ak ñetteel bu imaam sëlmalee nooy def. danga naan ñokkat jóg taxaw daal ne allahu akbar foofu booy jóg danga naan allahu akbar boo jógee jàng faatiha ak saa ko sigiru ko dem sujjóot sigi sujjóot sujjóotaat daal di taaya allahuma salli jeex na benn lañ laa rawee woon fay nga benn ba jeex na julli timis bu dee dañ laa rawee ñaari ràkka nag kon yow benn ràkka rek nga ci fekke bi nga ñëwee daal ràkka bu mujj bi nga fekke waaye ñaari ràkka yi imaam di jàng faatiha ak saar yëpp fekke ci benn yow benn rakka bu mujj bi rek nga fekkee kon bu imaam ne asalaamaaleykum nooy def da nga naan ñokket taxaw te doo wax allahu akbar da nga naan ñokket ba jug taxaw rek boo taxaw ba taxaw temm jàngal faatiha ca kaw jàng aw saar ca kaw rukon sukki rukon dem sujjoot toog sujjootaat toog daal di toog taaya foofa da ngay toog taaya foofu laa la wax na ñu bari dañuy jóg taxaw kon bu fekkee julli gi benn rakk nga ca am boo fayee benn rakk rek da koy boole bopp muy ñaar nga daal toog kon fii ñu bari dañuy jóg taxaw ma baamu ko julli timis imaam rawee na la ñaari rakk yoo xam ne fekke woo ko yow benn rek nga ànd ak moom mooy bu mujj bi bu imaam ne asalaamaaleykum da nga naan ñokket jóg taxaw te doo wax allah akbar daal di jàng faatiha ak saar rukon sigi rukon dem sujjóot toog sujjóotaat daal di toog taaya boo taaya ba rek nga daal di jógaat taxaw ne allahu akbar daal di andiwaat beneen rakk boo xam ne faatiha ak saar la moom it bu jeexee nga daal di taaya daal di sëlmal mu jeex kon boo seetloo sa julli gépp da nga toog ndax da ngaa ànd ak bu mujj bi imaam boo jógee fay benn rakka da ngay toog taayawaat boo jógee indi benn rakka da ngay taayawaat waaw moo tax léeg-léeg ngay dégg ñu la ah, ak julli ni muy demee ba nga xam ne euh, rakk boo julli da ngay toog ku la neexee mën ngaa tontoo nii mën nga ne bu fekkee ne benn rakka nga ca am kon imaam day toog taaya nga ànd ak moom te boo fayee benn rakk da ngay toogaat taaya boo boo fayee benn rakk daal toogaat taaya kon nii la ñuy fayee julli timis euh, yàlla ci yàlla def ak leer incha allahu rabbi asalaamaaleykum bismillah nu dellusiwaat ci sunu bindu bii ñuy duppee xam sa diine ci saw làkk dafa mel na tey mooy sunu jotaayu fukk ak juróom yet mooy dix bu nu delloo ci ginnaaw dafa mel ne dañoo waxoon ne diine de su koy séddale yetti xaaj am na xaaj bu ñu tuddee gëm gëm ñu waxoon ne juróom benn la jàngoon nanu ko ba weesu ko gëm yàlla ak malaaka yi jeex am na xaaj bu ñuy tuddee jëfe ndigal bàyyi tere booba jàng nan ko ndax jëfe ndigal bàyyi tere waxoon nañ ne juróom la tudd baati seede julli woor nata asaka aj màkka nañ ko jàngale woon topp nañ ko di ko jàng par benn benn jàng nañ julli jàng woor jàng asaka aj màkka lañ jeexale ak fay julli bu ñu la rawee léegi nag kon tey dañuy ñëw ci xaaj bu mujj bi te moo di def te yàlla tax am na ñu koy tuddee tasawuf am na ñu koy tuddee sellal waaye daal mooy def te yàlla tax Raghib TV def te yàlla tax nag saa yoo jëfee ndigal bàyyi tere dañuy bëgg ndigal loolee nga jëf ak tere googee nga bàyyi nga def ko ngir jëmmi yàlla rek bañ ko def ngir gis leen ma walla ngir leneen kon nu laaj laaj bi mooy waaw def te yàlla tax moom mooy lan lan mooy def te yàlla tax su boobaa dañuy danuy tontu la yonantu bi tontu woon ndax dañ ko ko laajoon ne ko def te yàlla tax ci boppam mooy lan moom lii la tontu woon kon yow buñ la ko laajee na nga tontu loolu neel def te yàlla tax daal mooy gépp jaamu yàlla goo xam ne yaa ngi koy def moo xam julli la walla woor walla saraxe wala wérd wala jàng alxuraan wala lum mën a doon nga ba ca xel yàlla ba mel ne yaa ngi jàkkaaru yàlla di ko gis nga bàyyi ca xel yàlla ba mel na yaa ngi janoog yàlla yàlla ne la defal ma xool defal ma xool bu fekkee sa ngëm ëggul foofa teew la ne yàlla yaa ngi yaa ngi jàkkaaroog yàlla su bubaa moom na nga xam ne yàlla moom mi ngi lay gis te moom moo la seen sant jëf ji te yaa ngi koy def kon loo ju dugal lu ci bokk rek moom mi ngi lay gis ma joxe ci niral xam ngeen ne moo sa njaatige sa patron bu la santee ab liggéey ba taxaw di la xool waaw loo man ngir rafetal liggéey ba da ko def waaye bu fekkee bu la santee liggéey wan la ginnaaw doo defee liggéey ba nam la ko sante da ngay fooka caaxaan loolu kon mooy ñàkk a sellal loolu mooy ñàkk a sellal bu fi kii nekkee daal danga def liggéey bi ni mu jaadoo sa njaatige waaye bu fi nekkul nag doo ko defee noonu mooy ñàkk sellal kon dañoo bëgg mboolem xeeti jaamu yàlla yi lépp loo ciy def nga bàcc ci xel yàlla ba mel ne yàlla dafa toog ne la defal ma gis bu fekkee ne xam xam nga ne mënoo gis yàlla mënoo teewlu aggoo foofu di teewlu ma ne yàlla mi ngi lay gis eh, maanaam yaa ngi janoog yàlla di ko gis nga xam ne yàlla ma mi ngi lay gis loolu moom amoo werante boo ne man kat mënumaa teewlu ba mel ne maa ngi janook yàlla nii di ko gis man ñu ne la waaw waaye am na loo xam ne moom en tant que jullit war ko koo xam mooy ndax xam nga ne bi nga julli yàlla nga lay gis nga ne waaw ñu la kon nag sa xol bii lépp lu dul yàlla génne ko ca xam nga ne bi yàlla ngi lay gis ah kon nag bàyyi ci xel yàlla bu ci bàyyi xel leneen bul saraxe ngir ne da tabe bul jàng xam-xam téere bu ne nga jàng ngir ne dama bëgg a raw saak maas kese waaw kese déedéet waaw kese déedéet bul woor ñu ne ngir ngir ñu ne kii daa ñeme koor waaw kay bul dox di sol yére yu yiw di lamsal def nangam ngir ñu ne kii ku dëddu la ku def nangam di lekk ndànk fekk yow loolu nga ci jublu loolu boo ko defee rek yàlla nga lay gis de subaa loolu la ñu tuddee ñàkk a sellal kon yonent bi la laajoon laaj bi ne ko waaw sellal mooy lan mu ne mooy gépp wala boog def te yàlla tax mooy lan mu ne mooy jaamu yàlla yële di yàlla sant ak gu mën a doon boo koy nga teewlu sa xol ba mel ne yaa ngi janoog yàlla yaa ngi jàkkaarloog yàlla bu fekkee aggu leen foofa amu leen daraja joojo xanaa war ngeen a bàyyi xel yàlla moom mi ngi leen di gis yàlla moom mi ngi lay gis bu fekkee yàlla mi ngi lay gis nag subaa doo ñemee def mooy ba niral ah, nun mu ne léeg ñu def aw njombe léeg-léeg ñu def bàkkaar waaye moo ne booy def bàkkaar de da ngay nëbbatu li fekk nit ñi ñu ngi lay gis ñaare doo ko ñemee def doo ko ñemee def kii mooy yàlla ak jigéen wala kiy sàcc wala kiy def nangam wala day naan day dem làqatu ji léeg-léeg mu dem ci barab boo xam ne nit ñi moo ne yaa ngi ragal bëti nit ñi yow nit ñi rek ruus nga leen bu fi nit ñi teewee rek yu bari doo ko ñemee def ci xeet mooy yàlla nga ne waaw ñun waaw kon nag yàlla mi nga xam ne foo toll mi ngi lay gis kon lépp loo nar a def bàyyil xel ne yàlla mi ngi ne jàkk di la xool bu dee mooy yàlla la rus ko bu dee ak jaamu yàlla la bàyyi ko ci xel moom képp bu la bàyyi xel mbindeef ndax mbindeef yi mënuñu laa fay yàlla rek moo la mën a fay ñu yokk ci benn dénkaane boo xam ne yorante bi moo ko dénkaane woon ca tasul si xaar la sëñ Tubaa tëja téere ba yonent bi dane woon na bàyyi xel juróomi mbir balaa juróomi mbir di ñëw am na juróomi mbir yoo xam ne bu ngeen ca tollee na ngeen gaaw def lu ngeen man ndax bu ngeen ko defut am na juróomi mbir yu ca tege yoo xam ne dana leen fa fekk ñu ne ko ban ak man mu ne bankal sa baaraam bi ngay doon ndaw am kàttan gaawal nga profité loo bëgg a def da bëgg a liggéey ndaw a ko man da bëgg a jàng xel ma ci ndaw la ci ndaw la gën a gën a da bëgg a jaamu yàlla da bëgg liggéey liggéeyal sa réew loo bëgg rek ndaw ko dàq kon gaawal balaa ak màggat màggat mi ngi lay dàq te dana ñëw kon gaawal def li ngay def bu màggat ñëwee fekkee yow defoon nga la ko war a def ba noppi ñu ne ko benn ngi ak ban mu ne bi ngay amagu wér gu yaram na wóor ne wéra di mi ngi lay dàq te dana la jot gaawal nga xam ne wér yaram moo mën a jàng moo mën a liggéey moo mën nàngam gaawal nga def li nga bëgg a def ba booy wéra fekk la nga waroon def def nga ko muy ñaar sa baaraam bi nga xamee ne bi nga xamee ne yaa ngi yaa ngi am jot am nga waxtu am nga temps ndax nit day am fu muy toll day am temps mën a jàng lu bari mu man ko am fu muy toll nag njaboot tënk ko lépp tënk ko ay jafe-jafe ay nàngam nee na bi ngay am temps gaawal def li nga war a def de waaw loo bëgg a def gaawal def ko de ndax nana wóor ne am temps googe du sax kon gaawal def li nga war a def ba boo demee ba ëmmatoo temps fekk defoon nga la nga war a def xam nga mag mi dem ba di yor yor liggéeyam war a dimbale njabootam war a jënd ordonnance fekk xamagul ay farataam mu bëggoon bi bëgg a jàng farataam day xaw a jafe ndax léegi amatul temps lu bari mënatu ko kon bi ngay am temps gaawal def li nga bëgg a def lépp ndax na la woon ak jotadi ak jotadi mi ngi ñëw de mi ngi lay dàq de te dan la jot nga ne ko ak ban ñetteel bi de mi ngi noonu mu la ñeenteel mooy bi ngay am gaawal def loo bëgg a def ndax ak ñàkk mi ngi lay dàq te dana la jot wala nga faatu bàyyi fi alal ja da bëgg a saraxe da bëgg a tabax daara da bëgg a yóbbu nit ñi màkk da bëgg a def naan man su ma amoon alal dinaa def nangam gaawal góorgóorlu lebalal alal ji yàlla de denc ko ngir bis penc ndax boo ba ñàkk de loola doo ko mënati ñeent ngi noonu ban moo ko juróomeel nag mooy ba ko tëj nee na bi dund waaw kay bi dund lu bari man nga ko man ngaa tuub say bàkkaar man ngaa defar sa adduna man ngaa defar sa àllaaxira man ngaa liggéeyal yàlla lu ne man nga ko gaawal def ko de ndax boo xasee ba dee mënutoo dëppaat di ñëw àdduna dénkaani bii la ko yonant bi lañu ñu yonant bi dénkoonu Sëñ Tuubaa fàttali nu ko ca téeram ba di tasooru si xaar kon dafa mel ne lii mooy sunu bind bu mujj ci xam sa diina ci saw làkk ah, kon jàng nañu ne diina yetti xaaj la gëm jëfe ndigal bàyyi tere ak def ta yàlla tax gëm wax nañ ne juróom benn la gëm yàlla gëm malaaka yi jàngale nañ ko ba mu yeex ñu topp ko par benn benn jëfandikal ndigal bàyyi tere wax nañ ne juróom la tudd baati seede ak nàngam topp nañ ko benn bu nekk ba jeex def te yàlla tax leeral nañ ko léegi bu ñu la laajee looy tontu moom lañ jóge léegi yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp kon téere bii nga xam ne moom lañ doon jéem a topp di ko jéem a leeral ci wolof yàlla dogal na mi ngi àgg tey jii di ñaari fan ci weeru avril bu fekkee ni ci euh, weeru wolof niñ ñu ko baaxoo di waxe kon tey la ñaar fukk ak juróom ñeent di seeni bu njëkk ñuy seeni weeru koor yàlla yàlla may nu nu àgg ca te weesu ko te def ko na ko na ko borom bi subhaanahu wa taala euh, santaane allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim